Apparemment, nous sommes là aujourd'hui, le 24 euh, mars 2024, à Kébémer, plus précisément dans le centre de vote, école 5 de Diamegen. Nous remercions tout d'abord tous les militants de la coalition Bernobok Yakar, ils se sont fortement mobilisés aujourd'hui ici à Kébémer pour faire leur devoir citoyen. Effectivement, nous l'avons tous fait et pratiquement, nous avons confiance aujourd'hui que notre candidat, Inch'Allah, Amadouba, va remporter cette élection au premier tour à partir de 17h aujourd'hui. Et je pense également que cette euh, victoire, Inch'Allah, sera fêtée, comme nous l'avons toujours fait avec son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Et cela nous donne l'occasion, en tout état de cause, de remercier l'ensemble des militants sur le plan national qui se sont mobilisés pendant cette campagne électorale dans des conditions difficiles de ramadan et de chaleur pour effectivement attendre cette belle journée afin de porter notre candidat Amadouba à la tête de la magistrature suprême. Donc, je gërëm maa ngi sant Kep koo ngi ñuy ci taxaw man président Alliance démocratique pour une Afrique émergente Jolene donc des partis politique nous avons xam ñu ngi coalition Benno Bokk Yakar ngir fal tay ji suñu candidat Amadou donc ma ngi wax tantôt né, fi ñu nekk ni centre école 5 bu jamm gën fi ci Kébémer comme ni ngeen ko les militants yi militantes yi sympathisants yi responsables yi ñep mobilisé wu nañ comme un seul homme depuis biñu xëddé ba paré kenn nelawul pour def sen devoir citoyen gis ngeen jamm rek mo xew ci centre bi amul benn trouble vraiment c'est à saluer aussi moy ñu nekk ci kujje gi ñu nekk ci pouvoir bi vraiment li ñu privilégié mooy le bon voisinage ça aussi lu ñu war euh, gërëm la ginaaw lolu nak ñu ngi ñaan yalla inshallah à 17h déjà ñu commencé feetu suñu victoire. inshallah waxna ko sank ci tubab mané len ndam mom inshallah Amadou Ba dina ko am tay wax ji du loolu wax ji moy ndam li dafa wara dafa wara dori dafa wara metti dori yi nu mu war a suñu problème mais suñu problème tay du am du am ndam inshallah Amadou Ba dina am ndam donc ñu ngi gërëm ñëpp ci coono yi nga xamanteni ni mobilisé wu nañ ko militants yi dans des conditions très difficiles ndax ci weeru koor lañ nek dëkk bi tàng na vraiment mais ñom gisuñu loolu yëpp nous avons un devoir citoyen donc responsable nous ni ñu ngi de donc kulim Nous ñu leen di leen rendez-vous pour faire une victoire euh, apparemment euh, ici à Kébémer euh, plus précisément dans le centre Diamaguène école 5 le scrutin se passe dans de très bonnes conditions. Et pratiquement, les militants ont pris donc, en masse donc, euh, les stands de vote. Et pratiquement, je pense que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. On espère en tout cas d'ici ce soir, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, donc fêter la victoire de notre candidat à Amadouba en tout, toute la déco. C'est l'occasion de remercier donc, tous les militants qui se sont déplacés, pratiquement depuis euh, les campagnes électorales qui se sont déroulées dans des conditions très difficiles. Vous savez, nous sommes donc en mois de ramadan. Et ici à Kevmer aussi, il fait un climat en tout cas extrêmement chaud. Mais malgré tout cela, les militants se sont mobilisés comme au seul homme. Donc pour battre campagne à nos côtés, ils sont mobilisés massivement donc en tout cas, c'est la même chose qu'ils ont démontré aujourd'hui. Pratiquement, ils sont là. Donc ils sont là, pratiquement tous là. Donc ils ont pris un assaut donc, les bureaux de vote donc, pour accomplir le devoir citoyen. voilà, donc pratiquement... Euh, message bien lancé euh, Sénégalais d'une manière générale, tous nos militants qui sont ici et ailleurs, moi, ce que mom lañuy def ni rek manam ñu voter ci jamm parce que li benn bés la mais Sénégal day continuer di exister au-delà de des clivages politiques opposition comme pouvoir li ñu boole moo ëpp fouf li ñu tàggale muy Sénégal donc ni mu demee ni dal ñi voter ci jamm ak salam kii gagné gagné buñ paree ñu delluwaat fa ñu nekkoon muy. Euh, def le tout pour suñu réew Sénégal suñu gal donc avancer je pense que lolu lu am solo la et ginnaaw lolu nak ñu ngi sant suñuy militants yépp ñi nga xamné ne vraiment euh, boobu ba légui ñu ngi mobiliser wu comme un seul homme and ak ñun ci campagne électorale bi def lu ñu waree def yépp def nañ ko et dans des conditions très difficiles ndax xam ngeen dañu nek ci wéru koor aussi fi ci Kébémer xam ngeen dafa tang climat bu tang la pratiquement mais malgré le lieu c'est un attachement un sen jom sen c'est fayda mais aussi un engagement donc à faire le devoir citoyen wat watel donc kenn ki nga président Amadou Ba et ginaaw aussi vraiment ñu ci bi euh, bay suñu tabax suñu Sénégal ñu euh, Yakine, Inshallah, on va fêter notre victoire C'est le problème je l'ai dit tantôt suñu problème du gagner Inshallah, gagne. dañuy gagner suñu candidat on gagner loolu amuñu beaucoup problème mais problème moy dañu bëgg score fleuve score fleuve moy bëgg gagner dans les 90, 89, minimum 88%. C'est lañuy xaar mais xaaruñu leneen en tout cas content nañu ñu ngi ci terrain bi ñu ngi waxtaan ak militants yi inshallah rabbi ñu ngi ñuy bu baax nañ pratiquement nous ngi def devoir donc ñu ngi xaar Inshallah on a fait le tour pratiquement des centres de vote et retourné nañ donc c'est 5 pour nous orienter euh, suñu militants merci beaucoup merci.